maa ngi tudd Modou Ndiaye maa ngi dëkk Touba Mbacké maa ngi judd 1978. waaw dama amoon ay jafe-jafe ak wàllu yoon mu ngi tolloon jamonoy 2004 benn xew-xew bu amoon sama koñ yàlla dogal ñu am ku ñu fa faat bakkanam ci mbir moo xamante ni mbirum fab alal la. fi mu xewee ak sama kërit weesuwul motul sax ñett téeméeri mètre trois cent mètres motu ko bu yàlla subhaanahu wa laa dogalee loolu xew ñu ñëw jël si ma ci enquête ma ci gendarmerie Touba enquête boo xamante ni que jàkkaarloowu ma sax ak ñi ma doon laaj ba tey jii nii ci diggante laaj ak tontu ndax mbir mi xew xam nga xaw ma ñu jël ma déféré ma ci bool ma boole ma ak ñaari nit biñ ma boolee ak ñaari nit ñi ñu dem par retour de parquet yàlla subhaanahu wa taala dogal ñaar ñooña daal di daw bi ñu dawee mu des fa menn man rek ñu defaat ab diir ñu def declaration ci rajo bi daal di wax ne mbir mi ñu téye woon moo du Ndiaye di Tyson ñi ko defoon nag léegi jàpp nañ leen dañ doon werante ca biir violon ba sax waaye wax nañ mbir ma nañ ko defee ba noppi ña ñu jaay matériel ya ñu sàccoo nag lépp wax nañ ne ña ñu ko jaay ñu toll ci juróomi nit ñu boole leen indi leen njaareem ca tribunal yàlla subhaana wa taala dogal ñu ñëw fa ñoom it bi ñu fa egsee ñu boole leen fekk siis bi moom naka jekk doon na ma wax ne ma lii xam naa ne laale woo ci waaye mbirum faat bakkan dafa diis diis goo xamante ni faw ñu dem ba lépp leer bi nga xamante ni woo nañ ñu yàlla dogal ñooña it wax mbir ma nañu na mu demee bi ñu waxee mbir ma na mu demee ñu laaj it ñi jëndoon bagage ñi jëndoon bagage yi xam leen ne leen Modou Ndiaye mi yoonam nekku ci jëndul fekki wulit bi ñi jaay ñi nga xamanteni ni ñoo defit ñu laaj leen ñu wax mbir mi ni ñu ko defé ne ñun ñoo def mbir mi amna ci ko xamanteni def daf ne man damay julli ak a sax xalaatatuma xalaataatuma di jël doomu jambour ñukoy ci prison bi may ak mom da doon joy jaxran diko wax bi suñu borom dogal nak bi defal ma nolé bàyyi le procureur bi daal di opposé dossier ba dem Dakar bi mu ñëwaatee lañu ma taxawalaat daal di franc grand délit bi ñu ma franc grand le daal di ne ma mbirum yàmbaa moo xamante ni nañ ko ci Sambour sa benn lañ la mujj téye un mois fekk ci biir téye googu noonu ci la sama papa génn àdduna soxna kilifa mbàkke mbàkke bi ma doon ci laa tàqalikoo ak moom nga fii may waxee yow demoon naa ba Istanbul nekkoon Turquie waaye mënuma fa toog ndax sama papa bi muy génn àdduna mi ngi ma fekk ci prison bi génn àdduna pendant trois jours kenn mënuma ko wax sama yaay mi ngi ci quatre-vingt quelques années fi na nii sama àdduna sépp dafa yàqu ndaxte mënatuma jege mbokk ndax li nekk ci sama bopp bi ak ku ma jege damay yaakaar ne daal yaa ngi am bët boobu nga xam nga may nga may xoolee ba tey jii nii dëgg la maa ngi sama këru bopp gu ma jëndal sama bopp maa ngi samay soxna maay sama njaboot waaye bopp bi am naa jafe-jafu kii dafa rey nit ca barki alquranul karim man ak ñi ma koy waxal ba ba may tase ak ñoom ci pénc ma billahi allah si barki alquranul karim jegewu laaluma fekkewuma yëguma tinuma billahi allah si ca bu ma ko laaloo nit tey jii wala ma jege ca damay dugg ci sama ruq xool na may dabaata la samay rëcc ci sama digganteeg subhanahu wa taala ndax yàlla mooy ki jare tiit rawat na ci yenn bàkkaar yi amana kon mo mujj genn ci jafe-jafe yooyu ñëwaat di topat yoon ci lu ma jërul di sama digënté yoon nit amut wax dëgg yalla ngir ka ñu léral lan moy dëgg téye juroom ñaari at rek néma demal dal dal dal moo ma jaaxal ba tay ji def na fa juroom ñaari at juroom ñaari at yi ma def ci kaso bi li rek firnde ci dem ba euh, tagok sama sago ñeent lañ set laa tegale woon ngir buggatu moom man ndaxte ay weer ak i bis ak i at di dem ñu dina teg jafe-jafe ci loo xamante ni leer na leen lii defoo ko di la tëj ak a tijji boole ko yenn xeeti torture yoo xamante ni mënee su ko wax loolu da ngay dem ba nga xamante ni que faatu sax moo la gën a euh, dund dëgg la nag doon naa ci sant yàlla it ndax wala nablunukum bisay min alxawfi waljooxin wa nafsi min alamwali wala nfus samar basatasabirin ay sina isasabun musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ulaika alim salawat min rabbi warahma ulaika hum muhtaduna sama wayjur wa loolu la mujjoon a waxanteeg man ci ay kàddu daanaa delloo si fu ma masaan dem ba jaaxle daanaa delloo sama bopp ci suñu borom ba tax na bari na ci ñu xamoon ñoom laa nekkandoon foofu noonu ñi ci bari ti ay gardien pénitentiaire ak ay ñu fa doon jaar jàngal naa fa lu war a toll ci six cent et quelques personnes ba ñu fer iji Eh, loolu it eh, jaar am naa fa booba it mbir ma demewul noonu du xaru ndax xam naa lan mooy xaru ak boo xaroo lan ngay fekki waaye grève de moo amoon ci biir prison bi cinq cent et quelques personnes doon grève ah bi ñu xëyee garde yi nag di futti nit ñi di leen def yaramu neen hmm? dañuy summi sa euh, tubéy ak sa mbubb ba noppi nii lañu lay def manote la fab aw yat dugal ci diggante bi ba nopi bërëng la waaw jurbel prison prison jurbel la hmm. eh, di la torti torti torti, yo xamanteni ko que day daye ci amna lo xamanteni xamante ko fekk moko fekke moo ko gën hmm. too ñëw defoo waxoo yëgoo ko ñu lay torturer di la sonal da ngay dem ba nga xamanteni nga ñak nga ñakati ko fekk sax mo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane bu leen loru ba noppi di loraale kenn ku mën a doon na ngeen di fegal seen bopp ni ngeen di fegal seen moroom lor maa ngi woon ci jafe-jafe ci jafe-jafe yi xaw kañ laa cay génn ca coow li bari woon na ca moom it mënul supporter coow li ndax ñii ñi ngi naan moom la ñii ne du ko hmm? ci diggante boobu nag laa dem ba woo ko daan ne ko dama lay yi daal ci prison bi laa commencé woon tux bàyyi woon naa ko bi ma génnee quatre ans maa ngi nii dama commencé waat tux fi mu ni ci prison bi laa tuxee saafara indien fii ma jàkkaarloo ak yow di ko wax devant le public damay tux ba fi fi mu ne nii ca bàyyi woon naa ko pendant pendant quatre ans foofu foofu laa jànge lan lan mooy tux mënuma dem ci sama benn benn benn mbokk sama benn mbokk sama kër papa dañu mujj dañ ko jaay fii na ni que ci sama kër papa man na jar cent et quelques millions te dañ ko mujj vanter soixante et quelques millions ngir sama jafe-jafe man ci sama jëm bopp ma mujj obligé sa jënd sama kër ber sama kër bopp waaye fi ne nii damay damay toog àdduna bi yëpp mel ne dañ ma ko dañ dañ ma ko yan ndaxte képp koy dem di ko dëgmal juróom-ñaari ati kaso kuñ ne defut nan la mën a dañe ci bopp nit ki nga xamante ni am na ñuy def sax ca duñu xam fee ni mu demee ñu ne dañu faat bakkan ñu ne am nañ ci kaso bi ñaari at wala ñetti at ñu ne kii nag def na juróom at ci kaso ñu ne defut bu boobaa am na ñoo xamante ni du mën a dañ ci seen kii dañ naan kon lan dafay def juróom-ñaari at yooyu ci kaso ci kaso bi sama papa euh, li nga xamante ni moo ko yóbbu masis ñi nga xamante ni ñoo ma téye ñoo ray sama baay man ñi ma téye ñi téye doomam ci li ñu def doomam deful dara ñu tàqale ko ak doomam muy jàkkaarloo man ronkooñam di tuuru mu ne ma dama lay bàyyee ma la ku dul yàlla subhanahu wa sama baay nit ku ràññiku la ci yoonu murit ku ñëpp xam la koo xamante ni que fuñ ko tudd ñëpp a ko ñëpp a ko xam musul ànd ak kenn ci ay caaxaan kenn ku yàlla sàkk rek musul ànd ak moom ciy caaxaan ci lii ba mu xewee dafa ñëw mu tàllal loxoom ne ni ma sama rëdd baaraam yi leeral ni ma la leeral ne sama doom ji laalu ci yëgu yëgu ci tinu

sàcc la lay jàppe ci fii may wax ak ñoom ñu ma xamante woon ca prison ba rek boo ñëwee ci biir sama biir kër moon la ay xale yoo xamante nii ña ma xamanteel ci biir prison ba ñoo ma ko jox seeni doom xàqan ma jël leen yóbbu leen ci internat fi nii ñu ngi jàng ba macha allah am na ci ñoo xamante seen wajur bi ñu ma ko joxee léegi mat na ñaari at ah, mosuñoo teg tànk sama kër ngir kóolute gu ñu am ci ci sama jëm am na ci ñaar ñoo xamante ñu ngi sama biir kër kay gis na euh, Alioune laa laa woo téléphone mu jox ma numéro Sidi Gassama ma dem ci seen bureau bi nekk IPC côté Sacré-Cœur jox naa ko même dossier bi euh, maître Assane Diomba Ndiaye ku ci sonn ku ci volontaire koo xamante ni fayu ma ko ci ñaar dërëm ca teewul dafa jug xam dossier bi moom bi mu commencé ba tey jii nii maa ngi ko ci sant di ci di ko ci gërëm ku ci taxaw la taxawaay boo xamante ni daal moom bu yéeme la dama porte plainte contre état ngir kayit ñu wan ma lan mooy dëgg ci jën boppam parce que dama sus gouvernement bi may dégg dañu wax ne lépp dañu koy teg ci dëgg sama mbir laa bëgg bu fekkee ne man dama ca laaloon dara man yëlluwuma ci biir xaskan wi ñu delloo ma ca kaso ba bu fekkee ne laalu woon ci li dara sama àdduna bii ñu yàq ñu xool nan nañ may dellowaat ma mën a àndaat ak askan wi loolu daal lay lay sàkk waaye maa ngi koy topp ci sama diggante yow plainte naa it contre état bu Sénégal Euh, wax dëgg yàlla euh, bi ma ciy mujj déggante euh, sama avocat mi ngi ma xamal na ma dossier bi mi ngi cour suprême am na ku ma joxoon turam bu ma juumul budul baaji kànji di mbañi kànji ñaari tur yooyu benn la ci mu ne xam naa dootul yàgg dara mën nañ cee am ay dégg-dégg waaye depuis 2004 ba léegi maa ngi koy topp ci am na sama matériel chambre yoo xamante ni samay télévision sama ventilo yëpp bi ñu ko jëlee yóbbu ko boole ko ci enquête bi siis bi enquête bu noppi daal li muy bindal benn këyit ne ma lii matériel moo Modou Ndiaye nañ ko ko jox mu ñëw greffier bi daal di koy seet na gisuñ ci dara dafa réer ñu ne ma xawma trésor moo lay fay ba tey jii nii bu fekkee ne fi war a dence it ñu ñuy yong ñoŋalal suñu koom it foofa ñuy dañuy ñëwee nit ci dem boppam dara du fa fa ñoŋ it loolu it dañuy dañuy xaw a doy waar daal wax dëgg yàlla. man de li ma bëgg wax dëgg yàlla mooy suuf su sama bopp bi ndax am naa jafe-jafe jaxasoom nit ñu baax na ca damay am xew ci sama mbokk yi. wala dara damay damay damay bu ma waaxoo pour jub doomu aadama yi sax damay am jafe-jafe li nekk ci sama bopp bi daal nañ ma dimbale li ñu def ci sama bopp bi nañ ma ci dimbale lillahi wa rasul ndax tuuma ray nit lañ def ci sama bopp man ab jullit laan xaqan ah fu ñuy raye xalaatuma ko te it ray de euh, bu ma ko bu ma ci laaloon sama ruq da laay xalaata dëkk man boo xamante ni que nu may fës yéenee dabaatal nan laa koy tuubale la yàlla subhanahu wa taala ci jëm bopp waaye li ñu def ci bopp bi daal ëpp na ma doole ba nga xamante ni damay toog ab wu kenn kenn daal xamul daal wax dëgg yàlla man daal dépassé na ma mbir mi daal dépassé na ma daal wax dëgg yàlla wax dëgg waaw maa ngi ñeenti bant. lu lu lu lu diis lay doon euh, waxuma la sama sama sama doom waaye ñi ma bokkal di ay dëkkandoo sax ku ma ci gis sax. ci yu bare bari dama lay yee ci àdduna ngir ka fakkastal yi ci nekk ndax sama mbir lu jafee expliqué la yàlla rek moo mën a àtte euh, bi ma takkee sama soxna boobu soxna mbàkke mbàkke bi fukki fan ak benn moo tee pour soxna si ñëw sama biir kër ci lañ ma tuumaal mbir mi ku ne xam ne ne lu ay mbir nos lu ay nit nos la ba def def ko ci sama kaw ku ne xam na ay nit ñoo ko ñoo ko ñoo ko nos te ko ci sama kaw waaye tuuma faat bakkan daal laa xamul enquête boobu daal nan lañuy ñuy rek nit koo xamante ni xamu ci dara jekki-jekki rek bind say këyit daal yóbbu ko daal man daal loolu mooy sama problème ba tey daal wax dëgg yàlla waaw dama doon jàngale waaye fi na nii may toll nii sama mag bu ma bokkal ndey ak day jàngale internat la day jël ay jàmbur sax waaye fi na nii mënu ma ko jax jage actuellement parce que tux moom ma lay wax ba nii may wax yow dama koy def ci mënuma sama grand frère set wicc mbubbam weex tàll ma jage ko laxasu ko ba noppi am ay gàkk-gàkk muy def ay éducation ci doomi jàmbur ma nekk fa man di jàngale ba noppi naan damay tux ca fi ne nii tux mii ma lay wax ba tey jii nii dama koy def ca biir prison laa commencé tux yàlla seede na ko kenn ñi ma wut waxtaan ak man ki sama kenn ñemewul waxtaan ak man tudd ak man ci sama papa wallahi alazim barke alquran karim ci sama baay maa nekkoon doom ji mu gën a bëgg sama fukki at ak ñett ci laa bind kaamil sama fukki at ñett fu ñuy jaaral nit nit nit nit ku baax jaaral nañ ma fa hmm? sama yaay mi ngi dund mi ngi sama këru bopp la nekk moom man maay caatam soxna Oumy ture la tudd hmm. euh, bokk na ci sama yaay bis bi mu mujj bi ma jàkkaarloo ak moom hmm? dama mel ne baneen jëmm laa gis ndax sama yaay ko ko xamoon diggante bu gàtt daf ci màggat mbir mi bi ñu defee déclaration ci rajo bi dafa réer ñu koy waat moom ci rajo bi moom sama yaay sama yaay bi mu déggee ñu ne doomam rey la nit jël allu jàmbur moom dafa dafa réer nga xamante ci rajo lañ ko mujj di dëkk déclaré ba gis ko moom sama wéy jamba magum cigarette foofa laa ko jële foofa foofa foofa laa ko jëlee ndaxte jafe-jafe yi dem na ba nga xamante ni que soobu na ma indi indil mënatuma lekk mënatuma nelaw bu ma masaan def grève de damay jël pusa ak wëñ ñaw sama gémmiñ nga xamante ni métit sax yëgatuma ko dara ci métit masoor ba fa nekkoon moo mujj ne ma del tox cigarette sinon yow da nga am problème bopp mu jigi ma gis ñoy expliquer problème su nangam ak nangam ba nii may tok di wax ak yow ni damay tok damay tok te bayina ko panda 4 ans ñeentaati yàlla bàyyi naa ko sama way jur wu jigen waxam ak man lolu la bis bu yalla sak waye euh, duma xam ndax limay takale sama digeunte nit ñu bax ni complexe li li melni dal dafa am barrage bu dox sama digeunte nit ñi dal eh, lolu it xamul lan la ca da fay melni buma ma it eh, dana ma calmer tuuti eh, dana ma dana ma calmer tout parce que bayina ko pendant 4 ans bayina ko pendant 4 ans bayina ko. damay tok bu guddi mu tok toog man rek ak sama lan ak yalla rek sama ronkoñ di tour man ak man ak yàlla ndaxte ñi dañ ma yakal sama aduna bepp bepp bepp dañ ma ko dañ ma dañ ma ko yakal dañ ma yakal sama aduna sepp lañ lañ ma yakal barke alquran euh, loo xalaat ci métit ma nga fa loo xalaat rek ci ci ci ci métit waxuma la dara sax waaye ñàkk gee jox xàq doomu aadama bi damay dégg waykat yeeg ku ne koo wax mu naan wala xadd karam naa bànni aadama ila axira aya di ko di ko wax nit teraanga ji nga xamante ni moom la ko yàlla subhanahu wa taala jox eh, waaye foofu doye dal ji fi nekk ndax amna nit ko xamanteni ke même man na def aduna ak sin li ci bir man na am jafé jafé bu mu mën don doon nga waxtaan ak mom dalal ko ba delo ci ko waye de amna fa yenn façon doomu adama yo xamanteni ke ñu wara war ci liggéey bi ndaxte ñu ay kaña lañ ci bir liggéey bi ci sen ci yu bon yu bay yo xamanteni ni nañ ko expliquer batay tey euh, xam nga dañoo xulool ci misaal ne ko lu tax ngay dox bëccëg mu ne damay bañ ku ma jaawale man kenn jaawalewu ma bu dee da ngay jaawale da ngay jaawale nit ki nga xamante ni que lii da ngay nattable wala dara waaye nit ki nga xamante ni que lii bi muy am yow bir na ne la règlement de compte rek nga téyel jëmm jii nii moo waral nga téye ko ci mais gendarme yi may wax na nañu taxaw ñu kii dama cité seeni tur ba tey ci ku ma woo procureur wax na ko wax naa ko même même juge bi man ay ay bandi homme de tenue ñoo ma def lii ñu ma def koo xamante nii que benn gendarme bi moo doon doxaan magu ki bokk ci fee bi ki bokk ci problème bi moo ko doon doxaan ci boobu mi ngi daw ci prison 600 juróom benn ati kaso ca prison Koutal mu xam ko bu wér a wér mais bëgg na ku mu tëral ci mbir mi kii muy doxaan ma nga mucc ci ca li may wax ñu ci bari xam nañ ko mu jël ma man pour sacrifier ma pour kee muy doxaan maj rëcc ca booba mi ngi daw 600 ci prison muy bokk ak moom benn kër sànni moom mi wax xam na eh, xam na ko ca respectivement wax naa ko wax naa ko siis bi man noonu la noonu la demee sama kàddu gi mujj mooy euh, li nekk ba tey jafe-jafe ci sama bopp bi euh, nga xamante ni que dem nañ ba euh, sama xel ngir mu xalaat xel li ma jëfandikoo da ko dana jafe ci lu demee noonu ci wàll sama activité liggéey yooyu yëpp dama ko yàqule fi mu ne nii damay mujj ay poussin laa yar ci sama biir kër bu ma kiyee génne dem jaay yu ci bare bare bare bare bare daal mënatuma ci jaxasoo ak askan wi sama kàddu gu mujj daal maa ngi ñaan état bu Sénégal bu fekkee ne dañu wax ne ci dëgg dañuy taxawal nit ki nit ñi muy ñi néew ji doole ak ñi am doole man daal nit laa koo xamante ni que dañ ma tooñ tooñeel goo xamante ni que barke alquran mu ci àdduna mu yomal xiyaamatul akbar bu ma ci laalee dara daal yàlla na ma yàlla lakk ca sawar yi gën a xóot waaye bu ma ci laalu dara mboolem mbindeef bu laaloon ci lamañ man ak moom ba ca pénc ma billaahi alazi lii du ma ko jéggale ba yomal xiyaamatul akbar loolu daal mooy sama kàddu gu mujj wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu